commencé liggéey bi ba tey euh, daje nañ pour ñu gërëm leen sant leen ñaax leen euh, bañ leen euh, installé mbas mi ñëw amuloon activité te gis nañ ne activités yi de commencé waat nañu ñu woo nag sant leen ci li ñu commencé waaye ñaax leen ñu gën a góorgóorlu waaye bu loolu wéyee dafa am lu xew ci réew mi ci dimanche mu nekk lu doy waar loo xamante ne amul benn doomu sénégalais bu ko mën a rafetlu.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

ndax euh, dafa doon loo xam ne du lu du lu rafet euh, ñaaw na ci sport ba pare ñaaw na ci nit kese parce que di yàq même mbër mi daan sax daan ba pare di yàq cest à kenn mënu ko expliquer mooy li ministre bi wax sànq rek du loo xam ne xel mën na ko nangu mais liñ ci jot a def ci ay jéego comme ni ko ministre bi waxee CNG bi jël na ay matuwaayam am na ay sanctions yoo xam ne daanu nañ mais boole ci nag comme li ministre bi wax fermeté total c'est-à-dire dem ba jeex parce que tamit ñi ko def il faut que ñu dakkal ko te dakkal ko mënul weesu ñi ko def yoon dal ci seen kaw ba mu xam ne dal na ci seen kaw bu ëllëgee keneen doot ko def parce que li nga xam ne làmb dafa yàgg di jooy infrastructure monde sportif ci boppam mooy jooy ay infrastructure nga ñëw am infrastructure bu mucc ayib mais nit ñi bugg di ko yàq noonu dafa yomb trop mais loolu xel nangu ko amul kenn koo xam ne sa xel mën na jàpp ne lii lu ñu war a def la kon lépp luñ ci lu ci war rek euh, allah kulli foog ñu def ko. bu ma ñëwaatee ci beneen question parce que boo xoolee Demba Diop wala Iba boo xoolee saisi fi ñu nekkaan boo fa bëggaan toog soit nga fay dix mille wala vingt mille wala trente mille mais arène nationale fépp saisi la mën nga ne sax mën nga ne sax amu fa. tey ñu dem bay gis ay nit di damm loolu loolu yaakaar naa tamit est-ce que du manque d'esprit maanaam daal loolu nes ko mën a tuddee waaw mais sam waay kenn ku nekk nag fa nga jógee nañ la yare noonu ngay ñëwee façon nit bu nekk am na mais gis nga problème bi mooy il faut daan yi saf rek saway bu benn nit ñëwee damm benn chaise yoon dal ci kawam ba ñëpp xam ne yoon dafa dal ci kawam te dañoo gëstu ba xam ne diw mii la mais keneen def ko def gis nga fi mu nekk nii il faut ci réew mi ñuy sanctionner sanction bu ñu laalul sa yaram laal sa poos mais buñ ko defee ñëpp dinañ jub loolu kese la amul leneen waaw amul leneen amul ma dem te ñëw. Mm. tey làmb tamit nga bokk ci kuréelu CNG ni muy doxee bëgg làmb ubbee ba tey surtout la lutte simple bi mu mel ni làmb ji fi nekk nii xaalis bi na macha allah ci mise yi loolu tamit noo ko gisee en tant yëpp dafay doxal làmb rek quoi boo xoolee léegi promoteur yu bëri dañu nekk ci sans bi nekk ci avec frappe bi. mu ngi dox parce que loolu la ñu parce que nag toog nañu at boo xam ne wax dëgg yàlla euh, ñi bëgg làmb ñëpp. gisuñu woon amuñu woon benn possibilité pour dund seen passion léegi yàlla dogal na ubbiwaat nañu làmb mu ngi dox te ñu ngi ñaan yàlla mu jëm kanam parce que loolu yëpp ngëneelu làmb la. kontaan ci yow jaajëf moom itam yaakaar naa bokk ci membre CNC yi keroog gis naa ko sax xaw ma superviseur la xaw ma nan laa ko mën a tuddee Abdou Aziz maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Babacar. Abdou Aziz ban euh, ndombo la yore fi nga xam ne moom mooy CNC. man maay quatrième vice président chargé des finances. des finances waaw mu mel ni keroog li am. doy na waar ba tax tey monsieur le ministre woote ci mu mel ni yéen tamit bu fekkente ne yéen yore làmb ji lu mel ni am te làmb defe naa tey li mu jotagoo am bi mu ubbeeg léegi yeneen sport yi sax amuñu ko yaakaar naa loolu boo ko gisee euh, dina naqari ci sa xol lool am tant que kilifa bu nekk si làmb tey. waaw non lu ñu metti la looloo tax euh, démb ñu jël ay décision jëm ci ay sanctions te yemuñu foofu euh, nit ñi ñoo war a xam ne dañoo toll ci réew mi ak xarale yu bees yi. neel gisuma kenn mais kenn gisuma bu ko wax te ñi koy def yëpp nañ leen identifier teg leen ci yoon dégg nga li ministre bi wax léegi on va aller jusqu'au bout ndax nag mënuñu am su la xam suñu sport national président defal ñu bijou 32 milliards ñuy bàyyi ay gone yu ndaw di ko yàq ça ne continuer sanction yi ci mbër yi la léegi ña doon ña ñu àndaloon ñuy toj ci ci ñoom la ñu jëm nañu toog xaar mbër yi ban sanction moo war seen kaw Euh, sanction bi yaakaar naa ne deux ans la. ferme un an ferme un an sursis. yoo xam ne duñ ko takk ngemb bu bëri. duñ ko takk ngemb waaw. waaw. ci mbër ngeen identifié yëpp ne. identifié ne ñoom la seeni supporter di def loolu. identification bi tamit wëri fii ngeen ba mu leer ne lii moom. Euh, Babacar yaa ngi woon ci làmb ji. yow mii buñ la woowoon rek ne ñu wax ñu mbër ñi xam nga mbër ñi ko def. wasalaam abu nduur bu record lañ taxawal nii defe naa moom tamit mu yëngutu ci wàllu lamb bu baax baax defe naa ne tey gis nga woote bi ministre bi woote woon ak li ko amoon kere arène nationale yow ngay tund lamb mm-hmm. defe naa loolu am nga xalaat mm-hmm. am am nga ci loo ci war a wax comme kàddu waaw loolu day sëñ Babacar amul kenn kuy ku koy kii rafetlu yaakaar naa ke amul amul kenn kuy nekk si milieu lamb gis li xew keroog arène national te am amoo lu la lu la métti que boo xoolee li li ñu ñu toogoon un an ba ak li li li xew lépp ba ministre bi ak ak ñëpp ñu ñu d'accord ubbi arène bi nit ñi ko ko ko commencé bëre nga nga nga xool le 4 avril li xew ci combat Gaston Mbengue Eumeu Sène rek Lac 2 li fa ñëw kaar kaar macha allah ci ay ay ay ay ak ay nit ñu ñu commencé am am yaakaar lu mel ni naram loolu kenn mënu ko expliquer ci àddina mooy sëñ Babacar loo xam ne kenn mënu ko expliquer waa loolu ñu ngi koy ñu ngi koy condamné de jàpp naa ne waa CNG bi bi ñu defee réunion démb wax nañu li li li ñu wax. ñi ñi ñi ko def on les a identifiés euh, nan leen pense que même bu sanction yi gënoon a sax kenn du dara yaakaar waa kenn du dara waa mel ni boo xoolee dama naan publicu lamb simple parce que am na ñu ma koy faral di wax daa mel ni est-ce que gënuñoo dal ëpp ñu dal par rapport public mais li sëñ Babacar yow yow yow da ngay ñëw li lutte sans frappe xam nga ne xew foofu mu mosul am bopp benn yoon rek laa gis lu xaw a mel noonu ci gala Dax euh, te loolu mooy ñi jëndoon ay billets billet 5000 nga jënd ko ñëw taxaw ak yooyu am lu leen xaw a métti ba pare mu nekkoon le premier gala euh, ba nga xam ne bi mbas bi jeexee lo mais lutte sans frappe seen ay ay ay supporters xamuñu loolu xamuñu fi la ñoom dañuy ñëw seetaan seen i mbër tàccu seen mbër mu jeex ñu ñibbi nag loolu amu fa mais lii daal maa ngi lancé appel ñëpp vraiment lii dafa ñaaw pour ñu koy wone ci ay image au niveau international ñu koy gis lii ñaaw na loolu te maa ngi koy ñaawlu. kontaan ci yow jërëjëf jërëjëf merci. ba tey ñu naa kenn du ko présenté ahlu lamb defe naa ne tey acte bi am bërki démb ci arène bi ci lamb sëñ Modou Niang mu mel ni moo waral tey ñi sénégalais à travers le monde ñëpp du ñaawlu image boobu yow ngay nekk ku la nekk si lamb si acteur Iba loo si wax ak noo ko gisee. waaw tout d'abord du ñaawlu loolu. di ko ñaawlu fu ñaawlu mën a yem. vraiment. dafa yàq image yu làmb yàq image yu Sénégal sax si àdduna parce que lii du du yoon du cëru làmb làmb mérité wul lii vraiment ak fi ñu jógee yaakaaroon naa tey bu ñuy débuté leneen la ñuy wax mais mais pas de image bi nga xam ne gis nañ ko si si si làmb ji mu nekk loo xam ne dama ko ñaawlu ba dernière volonté dañu leen comme le ministre bi wax rek dañu leen war a traqué jàpp leen vraiment juger leen parce que li ñu def vraiment li ñu yàq dafa parce que loolu nit ñi dañ doon jooy làmb dañ doon jaay fu ñuy fu ñuy bëree mooy benn infrastructure boo xam ne digne de son nom ñun fan lañ doon bëree stade Demba Diop fan lañ doon bëree stade Iba Mar far lañ doon bëri Léopold Senghor tey yàlla def ñu tabaxul ñu stade bu am bu valeur bu mel nii rafet taaru macha allah 32 milliards booy yi amuñu lu ñuy def lu dul defule wu si ay siège di ko sandi di yàq image lamb di yàq image Sénégal si àdduna je pense que lii moom CNG daf si war a jog les fauteurs de trouble dañu war a traquer c'est punir leen sévèrement nag sévèrement man du mu leen tuddee sax ay amateurs ce sont des oligans yi ngay xam ne yi ngay gis ay Pays-Bas ak Angleterre ak France ak ñii ce des oligans te méthode forte ngay def ak ñoom pour mun a pour pour ñu pour mun a génn leen ci làmb ji. Uh-huh. mu mel ni làmb tamit tey yow en tant que koo xam ne yaa ngi ci gis nga bi saison bi ubbee ba ñëwee ubbee na ak léegi. Uh, arène nationale am na ñetti journée lutte avec frappe am na quatre journée yaakaar naa lutte sans frappe gaal gi am na trois journée lutte sans frappe Adrien Senghor tamit am na yaakaar naa trois journée su ma juumul wala deux journée lutte sans àll bi waxi noppi mu mel ni kon làmb ji tamit bokk na ci loo xam ne facteur de la luy doxal réew mi la. non làmb ji sàjjoon na ba pare. làmb ji booy xool depuis le mars la commencé depuis boobu ba léegi nit ñi noppala wuñu arène Adrien Senghor mu ngi tëgg terrain gaal gi ngi tëgg arène nationale tëgg na 4 journée mais CNG ñu ngi créé sax ak les mercredis du CNG pour mu permettre bëre lutte avec frappe bi mu ngi doon jël son envol ñu fermer l'arène national pour donner benn signal fort pour wane ne lii amoon dootul amaat le pré le ministre des sports dafa war a fermer arène nationale daf ko war a fermer ñëpp toog ñu xool kan kan lay méttee comme nag dañu war a fermer arène nationale pour donner un signal fort lii moo gis keroog dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw ministre des sports na suivre les photos de troupe ñu condamné leen yoon teg si seen kaw yoon man daal affaire boobu la amoon lu ma siy wax. kontaan si yow. merci